وخ ر سول کنا تکو مخفر سول کنا تکو فتي جو نم جلو فتي جو چاوي بولے چرن فتي جو مائو وري کو فتي جو مائو وخ بکل کمو وخ بکل کمو கள்ள கொயல்ல எண்ணுவோம் கள்ள கொயல்ல எண்ணுவோம் பொருவ கொதிவேன் செக்குவோம் பொருவ கொதிவேன் செக்குவோம் Telefon, telefon, telefon, بنرجع ويجيك من الأزمان ويجيك من الأزمان من انت يا أزمان نجيك ترى وأنا وينك نجيك ترى وأنا وينك نجيك ترى وخلي من بعد يتصل وخدني بدا يخدني دان ترسل وخدني دان ترسل وخدني دان ترسل كبير مدينة وينك فسهم ليلة التي تاريخية على القرآن سورة الفتح أنا لا نقول dafay nag ñu ngi jégalu kilifa yi incha allah bu defee nag kilifa yi yéegee dañ leen doon ubbi dong pour teewal jotaay bi waaye comme que kilifa yi ñu leen dina affaire yi dina gën a neex ku yàkkamti nag doo fekkee li mag ñi di wax ni taatu bool moo dàq lépp ngeen xaar mbir yëf yi neexagul kilifa yaa ngi ñëw te kilifa yaa ngi ñëw boo defee rek ñu jox sama tijaan yi mu continuer programme bi incha allah bismillah. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا العلي العظيم ginnaaw ba ñu leen ñoo ngi leen di ziar bu baax a baax di leen baal wax di leen baal والله يا رب العالمين أراك bëgg Seydina Muhammad loxo ca wallaahu yaa la ma ko nadi ku bëgg dabaax Malick dabaax nee na Seydina Muhammad yaa marxaban bi sayyidil adna bi sayyidil adna xadratu xutbalaw mawlaaw ku yaakaar Seydina Muhammad dafa gën a màggal bàyyi Fatima يا مرحبا بسيد أدنى قدرته قطب مولاه يا يا سيد المولى دعاه محمد ملجأنا أحمد النبي

jërëjëf mayal leen ma ko loxo waay mel leen ma ko lopp bu baax a baax jërëjëf alxaaji Demba Seye ak ña mu àndal góor gi tàntagul bu tàntee ñu xam ne moo di mbër si di faagee démb ba te jawaar ali booy Si wallahi su tàntee rek ñu xam ne moo di mbër defee rek kon ñu ngi koy jaajëfal di ko ñaanal yàlla defal ko jàmm moom alxaaji Demba Seye nii nga ko defee woon daaw defaatee ko nii yàlla na ko defee nii déwén ci barke Yonent bi sallallahu alayhi wa defee rek kon alxaaji Modou Kebe alxaaji di Kebe ma bëgg nag ngeen mayal ma ko loxo buy yéeg muy suñu wëllëre di ku baax ndeysaan moom moom dama ko sonal ak ña mu àndal Seydina Jiib alxaaji Jiib Ñang Mamoudou Sané ñoom ñu ma àndal ñoom ma Cissé Gueye ñëpp mel leen ma leen loxo ñu ñëw ñoom def seen participation ci bis bi ndax leen nag yee ñoo woote waaw seen bis bisu ñëpp la يا سيد الكونين يا بلم الردى يا بدرة من في الوجود على المدى يا سيد الكونين يا علم الهدى في الوجود على المدى على المدى يا خير خلق الله Ya, ya, na ko yaa yaa nabara diini wa ali mamadu mamadu ya baqiyan kumbaari Tadi rada الثدى الأولياء وجل الثدى الأولياء وجل الثدى وعلمت البركات لله المغنى هذا المغنى هذا جمال الكون لا جمال الكون هذا مدروه هذا مدروه هذا الذي من وجود تجددا Amma udah malik jambu berena lain dari ذكر الأول كان نبى الشيخ جيدا غفر ذنبك رجل تجاي جدنا ما يمامك نبي أبوه يعبده بكل ورز بكل قابل الجد ولنقده بكل ورز بكل قابل الجد ولنقده الله عليه وسلم إلا الرسول سبيلا إيه، فتساهد مأمون أنا صوتي يندي وينه الله أيوه بحثت إلى الرسول سبيلا سبيلا

Gracias, yêu yêu Señor yêu voy bay berdaya yêu We yêu gonna yêu we yêu like one said, you're a, you're a, you're a, you're a,

يقيني إلى الجنة ما ليس يحمد رسول كريم بيتنا سار أحمد يقيني إلى الجنة ما ليس يحمد رسول كريم بيتنا زار أحمد وخاني أساوى والموت والجال سرمد رسول سفي في البرايا محمد محمد المختار الكبير والأسى قبل محمد لقد جاني في البر سبق مكي الورى على كل مخلوق بالخلق تسند مديحي رسول الله Lakatma

ci buntu jumaay Serigne Touba nga woy fi sunu maam borom Touba bàyyi basak baara maami doon ak cheikh bàyyi Serigne Saliou Mbacke borom njurul borom jàppandal borom lagan ak ndoogaan borom daara umul xuraa boo ñëwee fii nga woy ko fi woy ko ko fa nga war a woyee kon leen na bee lay sant bu baax a baax a baax di la gërëm dina ñaan yàlla jàmm te di ko saak ci yow ñu ngi nuyu bu baax a baax alhaaji babacar alhaaji babacar jamono ñang di suñu xarit di suñu wëllë macha allah di nit ko yàlla baaxal ñu ngi koy ziar bu baax di ko ñaar jàmm moom di ko sàkk moom alxaaji Mansour ña ñu ngi lay ziar Mansour bal xaw ñoo ngi lay wàccee sa wàccuwaay bu mel ni dañu beral euh, cant ak ngërëm ak nuyoo ci ñu ñu leen nag yéen si ku ci mel ni monsieur Omar saw conseil spécial di président de la république leen nag ñu ngi koy sant bu baax baax di ko gërëm di ko yóbbante nuyoo bu baax macha allah maman Boy ciseau borom ciseau d'or moom it maral la ci bis nee na ñu ngi koy sant di ko gërëm alxaaji Samba Sow président daayira muxta muxtahabina fillaahi macha allah moom it pare la ci bis bi ñu ngi koy ziyaara baax a baax di ko nuyu moom it nee na ñu ngi koy yóbbante ci moom alxaaji Vieux Bari kazalika alxaaji Mouhamed Ndiaye directeur école privée amit xalifa euh, Ababacar Si ñoo ngi nuyu baax suñu yaay maman Daado Dia ñoo ngi koy nuyu baax moom it di ko ñaanal jàmm di ko sàkk ci moom euh, maman Jabu Sëy Pape Gueye responsable politique à Fass Mbao macha allah soxna Daba Samb kazalika noonu la ko leen namee di yóbbante nuyoo ak cant ak ngërëm mooy lu mel ni ci ñuy darajaale bis bi la bokk soxna Daba Samb soxna Ulay Jaw moom it ci ñuy darajaale bi la bokk leen koy beral nuyoo ak cant soxna Binta Mbub soxna Nday Fatou Cissé soxna Seynabou Ndiaye euh, les meilleurs amis de Mbour ñoom tamit ñoom ñu ngi jóge ba Mbour ñu ngi ci jotaay bi leen na biyee ñu ngi leen di beral nuyoo bu baax a baax a baax cant ak ngërëm waaye nag ñi nga xamante ni ñoom la ci leen na biyee teg mën naa ne jamono ci ginnaaw daan naa dégg am koo xamante daan wax naan mbedd Fass sama fit bi moom lay bañ waaye ñoom bu ñu ñëwee dañoo raxas mbedd Fass ngeen tàcc waa aar mbedd Fass baax a baax a baax a baax ci seen taxawaay bu am solo ci liggéey bu am solo bi ñu def ci gox bi tàccu ma leen bu baax a baax a baax a baax waa aar mbedd Fass leen na biyee ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen beral cant ak ngërëm macha allah ñu ngi nuyu baax alxaaji Ousseynou alxaaji Ousseynou baax di sunu doyen moom it ñu ngi koy ziar kazalika alxaaji Demba euh, sànq seenoon nañ fi alxaaji Lamine ñaa borom ñaa sono suñu wëllëre di sunu mag moom it ku baax bu ko defee rek ñi waral bis bi ñoom la ñu woo ñu ñëw fii dama bëgg nag bu ñëw ngeen du ngeen teerul ma leen ndax nag woote yomb na waaye woote ñu wuy si la dafa jafe lool ndax am na ñuy woote nag te bu ñu bu ñu wootee ke si doon si waaye saa boo leen wootee mu fes del kon ñun la ñu woo ngeen ñëw def na ngeen daan def bëggal seen i joxe seen néew na macha allah mbir yi neex bu ko defee rek ngeen jub ngeen tàccu ma leen ngeen teelu ma leen na bien waa kër Baye Mor njabootu Baye Mor njabootu Baye Imam Gassama xale yi mbedd Fass yi nga xamante ni daan mooy ñi nga xamante dañoo jàppante jàppalante bëggante seen biir te ànd doon benn acca tàccu ma leen tàccu ma leen bu baax a baax a baax ci njiitalu Alhaji Ousmane Gueye macha allah ayca le nouveau marié. شاطئ جاتني انا وبدي من من هواكي يستني مسك الحساني ريحه ريح القزاق ما سرع عن اهل البيان ريحه ريح القزامة سألوا عن أهل بياني أعجز الحال رجال حالي في كل اللسان سيرين سيخ تجان سنينا أعجز الحال رجال حالي في كل اللسان

من وجالي جده الفرد الطبيب طبيب النفس من أدن جناني سرين سيقتجان سنانا جده الفرد الطبيب نفس من جناني gis nañ ni ñu màggal Cheikh la Tijaan ana seet ba Serigne Cheikh Tijaan si Al Maktoum def leen ni ñu màggal ko jattumul fadda tabibu nafsi miratul jinaani anni ya rabbi alayhi wa Allah الأسلم الحال sabine

Yeah. I Thank you. I'm gonna I'm Você pensa, você pensa,

Let's go. はい والله Say, Putijani, su paree ñu continuer fa nahnu fi biqin sadid tarakumi sadid للمكارم صدقت على ما قلت في عود ديننا عود ديننا غريبا كما في البقية خير راهمي محبتي صلى الله عليه وسلم وأهل اتباع سنتي في التراهم نعد عليها بالنواجس مثل ما به قال في إسحاق من الوبل وفي الآفاق الأميرة لا أصباها الناس فيه جدوى أشبه الوبل وهو الآفاق والبيت الحمد لله الذي فرقنا محواه I know you, yeah, you're more than me. I said, they said,

vida luna, yes vida luna, vida vida vida luna, vida yo vida luna, vida luna, vida yo vida luna, vida luna, vida luna, luna, luna, luna, luna, luna, luna, I'm not going to be able to do it. I'm not going I'm not going to be able to do it. I'm not going

you. I love you yalla juru juru Allah juru juru Yalla dururken ölürüm derken bu

Thank <laughs> you. يا جرى بالسماء الحمد ay ko sëpp Serigne Babacar loxo ca kaw waaw xam naa dafa guddi waaw xam naa dafa guddi keroog lu war a dem dafa bëri lu war a dem dafa bëri waaye su guddi bi woon dinaa ne su guddi bi woon dinaa xam na yu des su Omar sama paree rek dañu continuer bu kenn ñibbi su paree dinaa leen wayal xeetu yonent bi moo gën si kon ngeen bàyyi waa tant bi awu ko damaa bëgg yéen ñëpp wax leen xeetu yonent moo gën si xeetu kuntuma xeetu dafa gudd rek waaye su guddul woon naa leen wayal sara laylan sara laylan sara laylan

xam naa ni daal dox bi suma lugal yu nu tagg musuta faata rasulallah yonent ba suma luus yonent ak Mustafa yaa Rasulallah yonent baa bu doon yaa sallallahu alayhi wa sallam wa dallu ma dina wa yantaka waaye su ko ñuul woon Allah Allah إله إلا الله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 tijaan yi ana tijaan yi ana taalibe Seex yi ana taalibe Seex yi ay jëleen ñu ñaani paasa ndax maa ngi teel nga paasa maa ngi woon di leen tijaan la man tijaan la man tijaan la ñu mën ma di di ana tijaan ay jëleen ñu ñaani paasa ndax maa ngi teel nga paasa maa ngi woon di leen tijaan la man tijaan la

Mouhamad Ndiaye moom it borom école Khalifa Ababacar ñoo koy sant bu baax di ko gërëm ñoo ngi nuyu suñu bàyyi bàyyi si géey waaye Omar saw mii nag ñoo koy sant bu baax di ko gërëm ndax wax dëgg yàlla programme bi desee jàpp lool lool lool lool ndax depuis bañ ko joxee invitation ñun gisuñu ko sax bu ñu ñëwee rek dañ ko bàyyi waye xolum ndax ndax ñun def nañ délégation ñew si moom xoolul dara avant programme bi la yëkëti xaalis bu bëri xaalis bu bëri bëri bëri bëri bëri tek ko suñu loxo té lool nak ku la defal lu baax soko waxul suñu lepp ay doonam naka ci bool té wax dëgg yalla mi ngi si koñ bi té ñu tamit moom la ñu am su ko defé ñom kay sant bu baax di ko gërëm di nuyu suñu yaay yi fi ñew lepp suñu jigéen yi suñu marraines yi ak suñu parents yëpp ñu ngi leen di nuyu bu baax nuyu Serigne Mama Boy borom si d'or moom it di ko ziar bu baax a baax di nuyu nag yéen yi mais di yeexagul dañuy bàyyi Omar Sow moom sànni li muy sànni kàddu yi dem ñu jox sëñ Demba signal après ñun tamit am na lu des ndax doomi Abdoulaye ja ñëwagul ak yeneen ak yeneen bisimilah. di bu baax a baax ci ñu bokk muy diine gi ci lu ñu bokk muy mbokku dëkkandoo gi ci lu ñu bokk muy mbokku xarit di am vraiment mbégte rek ñu ñëw tey ci guddi gi son et lumière les nabiens waa kër Baye Mor Gueye wax dëgg yàlla macha allah di nuyu le lead vocal bu ñu neexee ñu ne le lead vocal du groupe du Ousmane Gueye ñu naan yàlla vraiment yàlla fay ñu ko te ndaxte kàddu mbégte la ak sant la di bi ma àndal ñëpp ak aussi di sant aussi ñu ma fekk ñëpp di ay wëllëre di ay xarit di ay mbokk wax dëgg yàlla euh, kon bi wax dëgg yàlla diine gi am na solo lool ndax daayira yi macha allah mënuñoo tudd nag te dañuy ñaanal yàlla aussi suñu imam boobu yàlla yëkkati ko parce que li mel ni bu amee suñu xel day dem ci ñu feebar yëpp wante moom aussi imam boobu ñu koy ñaanal yàlla ñu ñëwaat jiitañu ci jumaa ji parce que tamit bisu ñaan la dañ koy ñaanal di ñaanal yàlla aussi suñu fe feebar yëpp yàlla yëkkati leen wax dëgg yàlla macha allah en tout cas daal ñu ngi leen di sant di leen gërëm wax dëgg yàlla bu ñu amuloon feneen fi ñu jëm dañuy toog yéen ba bërsëg wante Omar Sow moom seen Omar Sow la mm-hmm. Omar Sow wa koñ bi Omar Sow yëngal la wax dëgg yàlla comme ni ma koy waxee Cheikh Cheikh Tidiane euh, mooy sama sëriñ mooy seen Cheikh al Maktoum dama doon ñaan yàlla yàlla na ma yàlla may doom bu góor mu tuddee ko seen Cheikh yàlla def sama taaw bu góor maam ta ma taaw ma taawoo góor hmm. mu ñëw mu tuddee ko Cheikh Ahmed Tidiane al Maktoum Sow macha allah ma jël ko yóbbu ko ci daara ja muy jàng donc damay ñaan yàlla mu doon mu doon mu doon tërloo ci jëm yàlla jëkk yëpp mu bokkaat ak moom ñaari yoon guddi gu muy génn àdduna le 16 ak le 17 yàlla mayaat ma doomu jigéen 2017 mu judduwaat donc sëñ Cheikh dafa sori ci man dafa bokk ci man te damay ñaan yàlla yàlla yokku leeram passé ci barkeem ci barke bàyyam bi sëñ Babacar Si ci barke maam maam Alaaji Malick Si ci barke wàllu bi baax yëpp macha allah mais wax dëgg yàlla sëñ Cheikh moom comme ni koy waxee rek kenn du ko xeebal sëriñam kenn du ko xeebal bisam yéen tamit kenn waru leen xeebal seen bés moo tax it ñu ñëw fi ci tànk taalibe ñëw fi aussi tamit ci tànk wëllëre ci tànk jullit ak mbokkam ci jàng aussi seen mbokku taalibe aussi maa ngi nuyu ku ma fi fekk ñoom bari bari ñëpp wax dëgg yàlla te euh, Ndiaye ñoom ñëpp naa ngi leen di nuyu. en tout cas maa ngi leen di sant di leen gërëm. di leen baaluwaat si àq bu baax a baax di leen wax ne xam naa ne am ngeen njàqare wala peut-être am na vidéo yu jot daw mais du rongo ñu dara rongo bànneex la rongo ñu rongo ñu dara. Omar Sow dara jotu ko. Omar Sow mu ngi ci fu mu nekkoon Omar Sow mu ngi amul wër. mais dafa di rek ne boo nekkee ndaw nekk ci yoon xat-xat yi rëq-rëq yi bëri ñu lay dóor fu nekk souvent xol day day tooy te jullit aussi xolam dafa war di tooy sa su ne koy génnee donc di waxaat ne en tout cas fu ñu leen féete woon démb ak barki démb fu ko raw dinañ leen ko féete parce que ñiin fii la ñu am amuñu feneen fu dul fii amuñu leneen lu dul lii te lépp lu ñuy def dañ koy def ak kër dañ koy def ak mbégte en tout cas ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen baal wax ak di leen waxal asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu jërëjëf initiative bu rafet bu am solo bi nga xamante ni jël nañ ko def askan bi parce que lii bokk na ci loo xamante ni quartier bi daf koy ndamoo am na yeneen milieu yooyu dem xëy na dañuy woote ci yeneen yëngu-yëngu dañuy woote mais ñun alhamdulilah rabbil alamin yàlla may nañu ay ndaw yoo xamante ni vraiment xam nañu réellement li nga xamante ni moom mooy seen devoir te ñu doxalee ko nag ba ci organiser yu mel nii di sant yàlla bu baax encore une fois di wax ni rek lépp loo xamante ni xasida la boo xam ne jàng nañ ko yàlla ne ko def yal def yiw sëñ si quartier bi koo xam ne dégg na rajo yi rek lépp luy yiw rek li ci wootee rek yàlla nañ ci jot incha comme ni ko président waxee sànq rek di ñaanal suñu papa suñu sëriñ suñu maam Alioune Mbow yàlla fëgg boppam léegi ci boppam dellusiwaat si njaboot yàlla xam na ni bu ko fekkoon en forme dina fi ñëw toog. kon dañuy ñaan rek mu del siwaat baax baax si njaboot bi parce que lii yëpp mun nañ ne ginnaaw yàlla nañ dëgg moom la te ñun ñii ñëpp moo ñu tàggat ba ñu mën a toog fii tey ah, di taxawee yi kon Ousmane waaw waaw ñëpp presque xam naa ni loolu moo leen xaw a dénk rek mais bu woon loolu ñoom ñëpp di nga gis ñu toog fii ñi tey yaay jëm tamit ñu ngi koy jaajëfal baax sant encore une fois ci taxaw bi mu taxaw góor ñi parce que ñun dañuy dem hôpital doo ko fa fekk dañuy ñëw si kër gi di ko fa fekk kon moo bi dañ koy sant di ko ñaanal ak ah lépp lu mu namm si njaboot bi yàlla defal ko bi jaay nabi Moustapha sallallahu alayhi wa sallam alaaj Ousmane Gueye ñu lay jaajëfal encore une fois bu baax a baax di jaajëfal Hafiz di jaajëfal ñëpp bi jaay nabi Moustapha ah di wàccee foofu kàddu yi rek ah bu ko defee ngeen ngeen ngeen àggale incha allah గొలి فأنت إلهي يا مجيب لمنا دعوتك يا ستار فسر صعيبتي كما قد دعانا للنداء دعوته أجب دعوتي رب الكريم بلطفتي برك مك برك مدين برك فاس برك جواب برك سيد الحاج مالك برك شيخ الخليفة صلاة الفتح صلاة الفتح صلاة الفتح صلاة الفتح Amin, amin, amin, amin. Ya yok, bu değil, bu değil.